ñi nga xam ne samp nañu seen dënd ci élection yu ñu dëgbal ngir askanu Sénégal mën leen a nangu loole mooy jeexitalu ndaje bi nga xam ne ña ko amal la ñu ngi kontaan lool ci lim bi nga xam ne seetlu nañ ko ci ay jigéen yu bokk ci élection présidentielle yu 2024 ñu gis ne dafa yokk ren gis nañ ni candidat yi dañu bare ci jigéen ñi ñu ne ñoom ñëpp nañ leen boole ñu waxtaan ñu tàggat seen bopp ñu waxtaan ku nekk xool say jaar-jaar ak seen itam fi nga jëm nan ngay mën a soppalee doxalin ba nga xam ne senegal dina mën a nangu candidature jigéen. bokk na ci li gën a kale jigéen ñi nag muy parrainage pile parrainage. Euh, man par exemple gàllankooru na ma parce que loolu moo taxoon mënu ma woon jàll. suñu mbokk góor ñi aussi war nañu mën a fexe ba jigéen ñi bokk tool mooy yaatal parrainage bi bàyyi njëg li nga xam ne ñun amuñu ko muy le parrainage citoyen mais aussi am na beneen gàllankoor mooy daal ñi nga xam ni ñoo yor xaalis ñu ngi def leen neex. di jënd lu leen neex di indi chiffres yu yaatu yu nga xam ne euh, dafay lay xaw a jaaxal. loole waral ñu war a gën a ñoŋal leadership jigéen ñi suñu sukkandiku ci kii di Innocence Intap Ndiaye. le programme est important. jafe-jafe itam bokk na ci ne soxna yi dañoo war a fexe nangu askan wi. di leen teg ay daan. foofe tamit dañu fay am ay jafe-jafe ndax nag dañoo jàpp ne bu ñu nekkee soxna rek képp kuy xam ne rek soxna la moom itam dafa war a ànd ak ñun déedéet dafa war a ànd ak qualité li ñuy def ñun. qualité sur le leadership des femmes. gis-gisu askan wi jamono politique bu métti. système électoral bu tar loole bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy jànkonteel ngir mën a bokk ci élection présidentielle moo ne day jigéen ñi le am nañu pas-pas ni 2024 moom dinañ ci def ay jéego yu am solo